jërë ngeen jëf mbokki taal bi yéen ne yéenay safoo jamono ju nekk seen seen télévision Touba Argentine TV kon bu ko defee rek dañuy continuer ak yéen ginnaaw bi nga xamante ni waa gës bu xulub daayira bi ñu déplacé li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi ba tey mu mel ne jamono ñu temme ñu ngi taxaw ak ñi nga xam ne ñooy waa waañ wi euh, kàngam yi nga xamante ni ñoo téye li nga xamante ni mooy wàllum berne yeeg ak ya ca aju kon bu ko defee rek duñ def lenn lu dul jox ki nga xamante ni euh, mooy jëwriñu waañ wi mu présenté li nga xamante ni moo fi jot a ruus diggante démb ak tey ban taxawaay lañ am ci wàllum berne yi Eh, wàllum jus de fruits wii ak wàllum lépp loo xamante ne ruus na fi rek ci xeetu berne rek bu ko defee mu àggee ko mbokk taal bi nga xamante ne ñooy topp jamono ñu ne temee eh, Touba Argentine TV kon mbokk taal bi ñu ngi lay nuyu aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen mbokk yi kenn koy ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay ñu nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp nag ah di rafetlu bu baax a baax ci taxawaay bi am na solo lool ndax ndax dañ ni bu ne daayira rek sa xel day dem ci sëriñ Babacar si ndax ci Sénégal yaakaar naa ni moo fi jëkk samp daayira waaw ndax ba muy wax daayira bu war ndimbal la woon ak euh, xamante ak jokkoo de doo doolente nekk mbooloo mu takku yaakaar naa ni ñu ngi koy doxalee noonu bi ñëwee fii ni jox na fi commission COSCAS de commission COSCAS sëñ Babacar moo ko jëkk samp de moom ko sampeeg léegi booba ay at la kon ñu mënuñu koo lim kon ñu fas yéene ñu ñëw fii nag bi ñëwee ñu jox na commission COSCAS de moom la doon dund Sénégal ñu ñëw fii ñu joxaat na ko ñu ciy nam nabi ñu ciy nam nabi boobu ba léegi yaakaar nañ ne wax dëgg yàlla amul ci benn fay-fay ndax niñ ci am ndam ndax ndam loolu bi ñu ko defar rek suñu mbokk yu baax yi ñu ko àndal wax dëgg yàlla boobu ba léegi nag ñoomit bàyyi nañ seen yitte yëpp ñëw ngir yàlla ak Seydina Mohamed ndax bisu sang-sang yi la kon dañ ci ñaan yàlla sant ci ñëpp ziar ci ñëpp ah di rafetlu ñëpp seen taxawaay ndax wax dëgg yàlla bu nee koskaas dañuy tudd commission waañ wi ndax waañ wi wax dëgg ñoom it boobu ba léegi démb léegi ñu ngi fi ah ñu bokk koog suñu yenn euh, suñuy soxna yu baax a baax nday asu jiite leen ñoom it ñu ngi fi jàpp taxawaay bi ñu fa war a taxawaay yëpp ñu taxaw ko kon nag dañuy sant bu baax a baax di ñaanal yàlla yàlla nañu yàlla tas ci seen ci barke ci yàlla yàlla jàppale ah ma déggoon ci sama sëriñ Mawlaay sëriñ Abdou Aziz Al Amin yàlla ko yàlla yokk leer taas na ci barkeem ndax dañu woon taalibe amul lu tarbiyaam de kon sa sa tarbiya bu nenee ñëwal Tiwaawan sax nga ñëw fi ni jox la génnam nag nga di ko upp mu gëma ni mooy sa tarbiya de loola moo lay jariñ kon nag ñun bu ñëwee fii ñu jox na commission boobu dañ ci am suñu mbégte gën a gëm ni ñun loolu mooy suñu tarbiya ci kër Seydi Hadji Malick ñu jàpp ko nag di ko dëggal day nekkoon ak suñu mbégte ak suñu kontaante ak suñu doole ndax mm, ndax maa ngi koy wax rek ma ni nit ci li nga form li la formé loolu rek foo dem moom ngay ñaan yàlla doon ko dañu ci loolu lañ dund ci nu formé waaw day damay dégg ci sama responsable moral muy xalifa ñang de moom gëm naa ni man moo far moom mu ni nit foo nekk doo fa surga ndax foo nekk boo fa demee rek amul surga ndax kër sa jaaju maa ne amul surga kon xam naa day tënk wax ji rek gàttal ko jox Babacar mu sànni ci ay kàddu yu néew Babacar Jaxate nga sànni ci ay kàddu yu néew ñuy tënk suñu kàddu kon jërë jëf comme mbokk taalibe kon noo lañ ko doon toppee fii nga xamante ni mooy Argentine La Plata waa yi ñoo doon def li nga xamante ni mooy seen présentation waaye kon duñ dem mukk te joxuñ sëñ Babacar moom mi nga xam ni moom it ci kàngam mi nga xam ne ci waañ wi lañ bokk euh, mu wax ñu ana naka la waañ wi doxe ci bis bi ak organisation bi ndax difficile ci ñoom ak xeetu berne nga xam ne taxawal nañ ko waaw ange billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw di nuyu waa groupe bi te Touba Touba Argentine TV da xam ni waaw di am contentement ci teew gi ñu teew ci bis bi nii bis boo xam ne nii bisub Seydina Mouhamed moom jàpp naa ni nit ku nekk rek na nga ca duggee na ca sóoboo noonu nga cay fayee ndax jàpp koo nga xam ne nii boo xoolee mu àgg moom la soo doxee mu àgg moom la bu moom doo xam say waaj say yaay doo xam sa papa moom jàpp naa ni bisam bu ñëwee daal ak noo ca mën a taxawee war nga caa mën a taxawee am ca passif vraiment jàpp ni nag doomu aadama nag bu obtee dara ba ni lii maa ko bëggal sama bopp waaw war na daa mën a joxeel li mu am lépp parce que gaa yaa ngi fii démb ba léegi ñoom amet ñoom laaj ñëpp gaa yi fii lañ fanaan nekk ci organisation fii lañ nekk presque ba deux wax dëgg fa yàlla moom bis bi daal li sëñ mën toon naan bis bi daal daw mi kontaan nañ ci bu baax a baax di ñaan yàlla ñu koy fekk ay déwéni déwén rek bi jaay suñu naam Muhammad di sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah kon mu mel ni kaddu yooyu ki ga yëkkati mooy jëwrin bokk jëwrin waañ bi kon dama naan mbokk taalibe yi macha allah mooy li nga xam ne taxawal nañ ko Euh, di jaajëfal seen kilifa diine yi nga xamante ni ñoo leen tàggat yar leen ci diine ba ku ne xam ne ni Sénégal sori na waaye ñoom ñu ngi fii ci Argentine La Plata digganteem Sénégal avion di ko daw ci ay waxtu yu bëree baree bëri waaye teewul sàmm nañ seen diine sàmm nañ seen ngor sàmm nañ seen lépp ba ne leen ko góor ga ca Tiwaawan doon diglee noonu rek lañ nekkee joguñu ci benn yoon ba tax na looloo tax ñu mën a sabab ñu mën a taxaw lu mel nii kon dañ leen di jaajëfal euh, di ñaan yàlla rek at mu nekk ñu gën koo man euh, gën a wér gën a dëgër Euh, kon bu ko defee rek mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel jamono ji ne Touba Argentine TV ñu ngi leen di jox dégg daje ngis tiir rek euh, ci yeneen i jataay incha allah rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullah